en tant que président des chefs de village de la commune. xanaa euh, di ko rafetlu rek te di leen ñaanal sunu dëkkin yi rafet na waaye yàlla na gën a rafet euh, te ngeen nangoo nekk partenaires yi monsieur le maire euh, di leen sant bu baax nag ndax li ngeen ñu defal xeeb ngeen ki waaye réew mi suñu lool ndax réew mi fi mu ne heure mu tollu képp jul ab dund di ko jox kilifa pour ay eh, mbooloo mu jiite kooku yaa ngi koy jàppale te jàppale ko nag mooy jàppale seen bopp ndax fi ngeen dëkk dëkk nag dañ koy rafetal yéen nag kon jàpp nañ ne daal citoyen Bambilor à part entière ngeen eh, dañ leen di ñaanal daal yàlla na yàlla defal leen jàmm bu baax a baax a baax kontaan nañu bu ñu xamoon lu ëpp jërëjëf nañ leen ko wax ndax li ngeen mu ko defal li ngeen nu defal rëy na lool ku def lu rëy nag am lu rëy kon yàlla miy joxe lu rëy yàlla na leen ko yàlla jox kontaan nañu di gërëm monsieur le maire ndax it euh, li ngeen ko defal it bu fekkoon lii rek moo fi jiitu dinañ am problème mais fekk ngeen ko muy def kuy def nag ku ko jàppale la bëgg kon yéen ñi ko jàppale yàlla na yàlla defal leen jàmm bu baax baax kontaan nañu bés ni tey daal jàpp nañ ne la ngeen jàppoon nañ leen mais gën leen nañ leen di jàppaat yàlla nañ yàlla def lu jàmm salaamaaleykum donc euh, ñun moom dañ fi ñëw tey def fi li nga xam ni moy suñu waref parce que quand même bu ñëwuñu fi rek comme ay gan dañ ci bok parce que euh, mën nañ ne akis boo xoolee euh, mo bambilor ben la léegi buñ ne bambiloor ne akis buñ ne akis ne bambiloor donc dafa na ni suñu taxaway daf fi wara feñ sa suné té te monsieur le maire tamit sa yu amé ben affaire bu ñu def daf ñuy wo nañu il faut ngeen def dara ci dëkk bi donc sa yu waxé tamit ci dëkk bi lay waxal ñun tamit daf ñukay waxal si suñu njëriñ parce que bo ñëw ci dëkk aussi pour nga bokk ci il faut ngay wane ni yow ci nga bokk bu dëkk bi amee lu metti nga jàpp ci bu amee lu neex tamit nga jàpp ci waaw suñu wareef nag ci dëkk bi moom mooy fexe dëkk bi baax defe naa ne bi ñu fiy tàmbali 2012 fii àll la woon donc fexe nañ mu nekk cité ay nit ñu baax ñëw dëkk fi donc loolu day améliorer quartier bi améliorer dëkk bi tax dëkk bi gën a yaañ bi te ñun ci loolu la ñuy dox fas yéene continuer di ci dox tamit ci fexe cité bi nu mu baaxee nu quartier bi baaxee fexe aussi tous les aspects yi nga xam ne ne day fexe dëkk dox mu am ci dëkk bi te monsieur le maire tamit chaque jour mu ngi ciy jàpp ñun tamit ñu ngi ciy jàpp pour dëkk bi dox ci njëriñu dëkk bi daal lii daal suñu wareef la daal du xam ne ne sax waroon taxaw di ci wax dañu war a ñëw rek def ko discrètement mais bon comme tamit bon am na ay mbir yoo xam ne ne baax na di fësal moo tax ñu koy fësal nii mais lu ñu war la ñu def ko ah suñ ko defulee tamit defuñu lu ñu war def na lu ñu war ñu fas yéene nekk ci rek saa yu amee lu ñu war rek ñu nekk ci def ko ci jàppale dëkk bi parce que ci dëkk bi lañ bokk Lo dal mo am solo manam di jëm ci dundu yeb euh ci ci ciep dewlin ak euh, sucre ak ay kay aussi pour euh, sellal moy manam sabu pour raxasu ay masque aussi joxe nañ ko aussi pour nit ñi ma parce que quand même euh, fièvre bi nenen nañ bon jafe na metti na wul mais li ci am solo mom moy aar voilà dès que nga aar sa bop rek ci nam sel, def les mesures barrières rek fièvre yi boba dina dem ci jàmm ak salam waaw donc lool mo ñu war ñu def ko waaw fas yéene rek ñaan yàlla jële fi feebar bi ñu mu gën a gaawee. ànd bi 1900 2012 la booba ñu ngi fii ci délégation spéciale ñuy xalaat tabax fi ay kër am na ñu ko mën woon gëm ndax li ñu xamoon fi li fi nekkoon mais tey ñu gëmul woon loolu tey xam nañ ne Télium c'est une réalité moo tax ñu tabax cité yu bees yi ñu di ko wax ACIS mais directeur li ma ciy dolli mooy gërëm ñi nga xam ne ñoo nekk ACIS dëkk ak ñun. dañu jël seen bop juddul seen bop Bambilor magal seen bop Bambilor gëm na Bambilor lañ dëkk seen destin fofu la leen ko yalla indil donc nous tenons vraiment gërëm leen sant leen amul lu ñuy def ci commune bi ci communauté bi té ñom participer wuñ participer wuñu ci kon bés ki tay man na la wax na wa akis ma ngi leen di gërëm ma ngi leen di sante mais lima ci ciy dolli mooy du tay rek du tay rek ngeen def li tey boo demee Bambilor 3 clôturé nañ école bi ba def fa ñaari salle de classe loolu nag dañu leen ciy gërëm sant leen gërëmaat leen bu baax sant leen ci li ngeen defaat tey ndax dañu toll foo xam ne eh, jamono dafa metti muy pandémie ñetti weer yoo xam ne ku doon daw dépense tey boo daan am fukki dërëm léegi ñaar dërëm ngay am kon tey boo jëlee lii chargé camion dund ba mu fees ay masque ay gel suukar ñëw indil ko population wu commune Bambilor ñun duñ mën a def lu dul gërëm la sant la di gërëm bu baax ñi nga xam ne ñoom nga ko séqal ñi ngay liggéeyal ndax tey benn loxo rek du tàccu dafa am ñu la si jàppale ba nga mën a ëgsi fii tey kon monsieur le directeur maa ngi lay gërëm ci turu commune Bambilor mais gërëm la it ci turu waa AKIS ndax bu ñu jëloon kàddu it dinañ la ci gërëm ndax tey ku ñëw xool cité yii vraiment dina ci am mbégte ma bëgg gërëm la bu baax fi may daane moy sakku ñu am rangkon, rencontre ndax li ñu arrivé won daw ci mbënd mi ñu xol ba lolu bañ amaat ndax daw ñak nañ fi ñaari dom yo xamne ndox mo leen ray ma bëgg man ak yow ak chef de village dinañu xol waxtaan ñu xol nan lañuy fexé ba li amon daw amaat ren lolu moy kaddu yi may mujjé gëreem la bu baax sant la di rafetlu it vraiment li li ku ku parce que nit eh, kula dafal defal fay ko boko manul fay nga ñaanal ko boko manul ñaanal nga gëreem ko donc ñun luñu nit defal ci lu baax fu ñu taxaw dinañ ko wax kon ñu ngi lay gëreem bu baax ñu ngi lay sant fima le directeur moy infrastructure espace yi war de def abrité infrastructure yi bëgg tanti, it ci loolu ñu waxtaan ci ndax ay ndaw ñu nga fa dañu wara épanouir ay jigéen nga fa dañu wara am marché dañu wara am sax fu ñu donc yoy yeb bëgg na buñu paré ñu waxtaan ci japp benn ndax population yi infrastructure war ñu jaamu yàlla ñu war nekk chrétien war nañu dem seen église te yàlla def na place yooyu yëpp mu nga fa ma bëgg it ñu waxtaan ci waxtaan ci ak comité de développement bu ACIS ñu jéem a xool ñun en tant que collectivité territoriale lan lañ leen ci mën jàppale bu dee dañuy tabax bu dee dañuy lu ñu ci mën aménager ndax bes ni ki tey ñii bokk nañ ci commune Bambilor ëllëg doomu akis war na mën a nekk maire war na mën a nekk président wu Sénégal war nekk ministre de la République loolu nag ñun xam nañ ko moo tax dañu leen di accompagner di leen oo si suñu bopp lépp lu ñu xewle dinañ ci waxtaan ak ñoom ba ñu mën a ñëw ñu bokk ci xalaat donc gërëm la pour wax la rek tey am na benn jigéen bu nekk akis boo xam ne agent wu commune Bambilor la ñàkk taxu fii moo tey mu ñëw démarrer liggéeyam pour wax la rek ñun dañu gis ne képp ku juddoo képp ku ne ci commune Bambilor gis nañ ne am nga ci sañ-sañ donc loolu moo tax ma ne ko dox loolu nag bu ma am moy collaboration bi nous am ak ñom donc gërëm leen bu baax vraiment sant leen